Libération yéene kaay ne coowal Locafrique day waaw Khadim setal nañ ko kon moom set wicc maa la ko wax dama ne la doyen waaw génne na ordonnance ba démb day daal setal Khadim Ba Allahu ñoom Samuel ñoom ñëpp la wax Libération yéene kaay ne Khadim Ba day waaw mujj naa am ndam nag ca di Amadou Ba dama ne dogal bi nga xam ne Demba Kandji da koo jëloon day ñëw dëggal ko waaw doyen des juges Samba Sall ñëw na fa xas loolee teg na lé parce que nag atte bu mujj day nee nañ léegi nag xaadim moom moom lok aw coow dana am saar de ah maa la ko yow lok moo fa majoritaire moo fa am 34 pour cent laa la wax la ilaha illallah chamboulement bu rëy